nekk démb ak tey moo fi continuer nekk ba léegi loolu mën a jàpp ni tey jeex na ndax acte bi am tey acte de rupture lay nuróol depuis 2012 ba léegi depuis 2012 ba léegi yaa ngi gis véritablement li nga xam ne mooy voilà on alors euh, le président du mouvement Gëm Sa Bougane est libre lan mooy doon réaction bi tey euh, c'est un sentiment d'amertume un sentiment de désolation une déception totale par rapport à le fonctionnement de notre République, mhm. puisqu'on est en train de prendre l'institution parmi les plus importantes et de faire d'elle une arme politique. À quelques encablures des élections présidentielles, on ne peut pas accepter en 2024, surtout avec l'avènement de Sonko, oui. qu'on crée des dossiers vides, aussi vides, aussi fades. Et cela pour simplement éliminer le président Bougan. Mhm. C'est que nous déplorons. Mhm. que le dossier n'avait pas de contenu. L'incriminé ne savait pas les éléments à charge, il les ignorait euh, royalement en répondant à la convocation. Arrivé sur place, on lui a notifié euh, des éléments à charge comme étant euh, diffusion de fausses nouvelles, injures publiques, mais également euh, diffamation. Et pendant ce temps, il n'y avait pas de plainte contre la personne incriminée. C'est ce qui est bizarre. Euh, à la suite des, de, de, la procédure, les deux éléments en charge sont tombés, sont devenus caducs parce que le président Bougan les a balayés d'un revers de main. Parce que quand il s'agit de diffusion de fausses nouvelles, on peut dire que c'est Ousmane Sonko qui a diffusé de fausses nouvelles en donnant des chiffres erronés, des chiffres qui ne sont pas exacts pour tout simplement manipuler le peuple. Mieux, c'est pour dire que les organismes spécialisés ont donné des chiffres contraires à ceux donnés par Ousmane Sonko. La Cour des comptes, organise spécialisé pour faire des rapports d'audit, a également fourni des éléments ou bien des chiffres qui sont contraires euh, à ceux fournis par Ousmane Sonko. Mieux encore, le représentant de, du FMI a dit également que les propos de Ousmane Sonko ne sont pas exacts et d'une manière euh, très très très euh, diplomatique. Cela a exacerbé, cela a aggravé la situation au point que Ousmane Sonko himself ne peut pas digérer la situation, ne peut pas digérer la sortie de, du président Bougane, parce que le président Bougane, sa sortie a créé un déclic, a éveillé le peuple par rapport à ces chiffres fournis, ça et là. Donc on peut dire que c'est un aveu d'incapacité, c'est un aveu d'échec. C'est pour préparer les Sénégalais au pire, parce que nous, nous savons que d'ici ou bien d'ici les semaines à venir, les prix vont grimper. Ça, c'est connu de tous. Mais également, les facteurs deviendront de plus en plus salés. Le chemin sera exacerbé, l'immigration clandestine de deviendra encore beaucoup plus recrudescente, mais également les inondations n'auront pas de solution euh, efficiente, efficace pour soulager les populations par rapport aux difficultés auxquelles elles sont confrontées. Donc compte de tout cela, il voulait tout simplement museler l'opposition, minimiser les discords discordants, euh, faire taire les voix de l'opposition et instaurer un régime dictatorial, un despote, mais également une pensée unique, comme ils savent le faire.

président Bougane dafa diffuser de fausses nouvelles mais son Sonko moo joxe xibaar yu wérul xibaar yooyu ñan ñoo ko weddi représentant FMI moo ñëw weddi ko de manière très très diplomatique bu dee xibaar yu wérul yi également suñu corps de contrôle yi notamment euh, Cour des comptes dafa ñëw weddi li Ousmane Sonko joxe avec ses yooyu yëpp boo ko xoolee kon dafay jox dëggu euh, président Bougane léegi kan moo joxe xibaar yu wérul président Ousmane Sonko moo ko joxe Bougane dafa ñëw weddi chiffres yi ni ko li nga joxe di noonu. c'est la même chose avec Cheikh Yérim Seck maanaam chiffres yi Ousmane Sonko yoroon di ko joxe du chiffres yu baax te loolu nit ñi mën nañ ci dut baaraam léegi nag préparer nit ñi au pire préparer nit ñi ci seen échec préparer nit ñi ci seen cuune loolu jarul ngay embastiller ay opposants préparer nit ñi ci seen tële ci wàllu mbënd mi préparer nit ñi ci seen ñàkk solution ci wàllu émigration clandestine jarul ngay jéem a embastiller opposant à quelques encablures des élections législatives nga xam ne dafa am un bloc générationnel boo xam dañoo greffé wu autour de sàmm sa kàddu loolu ça fait peur au régime parce que ñoom mosuñu woon imaginer président Bougane dina ñëw trouver un accord avec une coalition pour sauver ce pays li ñu jàppoon mooy Bougane dafay demal boppam bu demalee boppam dañuy disperser voix yi mais li leen bett moom mooy ce bloc générationnel et ce bloc là fera mal euh, pour ces élections. alors le discours de Bougane jàpp nga ni ginnaaw li am nii moo waral ñu tegoon parce que tey. bu ne injure publique ñu jël cas par cas Ousmane Sonko moo njëkk a injurier publiquement qu'est-ce qu'il a dit président bi fi nekkoon 2012 ba 2024 da doon fen Sénégalais yi président de la république loolu moom moo yàq deru Sénégal moom moo ñaawal xotti war may Sénégal ci ndëndu àdduna tey président Bougane bu ñëwee répondre ko ni ko li nga wax du dëgg man jàpp naa ne bu jàpp day am war a wala ñu am ku ñu war a convoqué Ousmane Sonko la war a convoqué léegi nag rupture d'égalité boobu nga xam moo am ci wàllu justice dama jàpp ni sénégalais bu nekk sursaut la war a doon sursaut d'engagement pour que nga xeex loolu. parce que dañu waxoon ni à travers les réformes de la justice bi ñu defoon ñoom notamment ñi invité ci 263 personnes dañuy fexe ba réformer justice bi ba nga xam ne les articles les plus liberticides dañ koy dindi ci code pénal bi. tey yow mii dans l' exercice de tes professions mën na la ci jàpp ni la da nga de fausses nouvelles bis boo indiwul preuve ñu yóbbu la yi mën na dem 6 mois. le temps que ñuy àtte bu ñu àttee ni la tëj na la 2 mois wala ñu tëj na la 3 mois daal lay bàyyi. gis nga diffusion de fausses nouvelles article 254 art article 256 article 56 ba 100 c'est des articles liberticides yoo xam ni à chaque fois ñu topp la ko. procureur su ko neexee mën na la dóor pla instruction bu ko defee ñu bàyyi la foofu six mois fàttal la ngay moisir en prison loolu nag ñu ñu diggoon ni ñoom bu ñu ñëwee accéder au pouvoir moom lañ ñëw di utiliser les mêmes mécanismes les mêmes les mêmes faits les mêmes le même modus operandi ki dëkkoon fii si kër góor gi il y a une année ci ginnaaw mais moom lañ doon teg pratique yooyu mu dëkk cité kër góor gi tey moom moo accédé ci instance de décision yi di def les mêmes mécanismes à travers keneen koo xam mi ngi dëkk cité kër góor gi nekk opposant loolu la ñu war a ñaawlu c'est que dans ce pays là même pour dire la vérité aujourd'hui il faut avoir du courage. parce que à chaque fois 17h jot président Bougane man li ma yéem ci moom mooy day dem day mi ngi cimetière actuellement di def ay prières at ki nga xam ne mooy soxnaam di génn àdduna chaque jour la koy def du tëbal lundi du tëbal vendredi du tëbal dimanche donc foofu la dem mi ngi def ay ñaanam bu bu ci kanamee dina ñëw fekk suñu fii est bon euh, probablement nekkagul à l'ordre du jour mm-hmm. parce que war nañu noppalu war a préparer wu parce que comme avant ñu koy jàpp ñun à travers nos amis ak suñu collaborateurs yi nekk Pastef doon nañu wax ne ñu ngi ci tànk Bougane boo gisee ci biir discours am da doon ironiser ni ma sama saak pare na saak boobu tijjiwu ko tëju ko nam ko waxee woon noonu la ko tegee biñ ko convoqué bi ñu ñëwee fi lay ñëw nanguwul dugg ci biir ni ana diw ñu ne ko ah, ñëwagul ñu dem seen ñu ne ko ñëwagul te ñoom xam nañ ni président Bougane ci trois bërëb rek nga ko mën a seet boo ko seetul këram gii seet ko këram gi nekk Ouest Foire wala nga seet ko ci cimetière yi te bu ci nekk xam nga heure bi mu fay nekk mais théâtralisation boobu ñu nekkoon moom la ñu war a bàyyi booy seet nit kay mu am ay bureau am ko am foo xam ni réceptionniste la boo ñëwee bàyyil ko foofu convocation bi mais pour def théâtralisation pour ameuter pour manipuler à travers la justice moo indi tintamarre bi yëpp. dossier classé sans suite eh, effectivement loolu rek moo war mënoon a am parce que nit la koo xam ni constitution moo ko conféré moo consacré droit yi nga xam moom lay exercer parce que moom opposant la. dafa am droit participer ci marché dëkk bi di def ay contre proposition réew mi aussi bu jëlee benn dérive wala jël ay pente bu dangereuse dafa jar moom mu war a ñoo am position de garde position d' alerte position de veille pour que population bi mën a euh, euh, génn ci gudde gi ñu nekk voilà c' est gentil. merci beaucoup Moussa ñu koy gërëm bu baax kon nag Bachir information baa ngi noonu Bougane au moment où ñuy wax ak yéen mi ngi ca cimetière ya di ñaanal moom mi ngay dani li nga xam ni. feebar bi ko yóbbu ci mois d' octobre à chaque fois ci lañ koy célébrer.